fii la tàmbalee moom Maxwell Sukumbutsu mi di doomi Zimbabwe di doomi Afrique ci jamono ji itam ci la li di amal li ñu tuddee énergie libre muy énergie boo xam ni du ko jële ci batterie du ko jële ci courant waaye moom moo fexe bay convertir li ñu tuddee mbambax yi muy onde yi ba ni mu agsee fii di lépp di xalaatu boppam ak xelum boppam 100 africain Maxwell mi Kangami Third Technology di campagne bi nga xamni ni amal auto yi ñu la wonan ak hélicoptère yeeg drone yeeg yi ci aju yépp té mom mi ki nga xamni ni lañu xam ci ku njëkk amal courant libre bo xamni ni di convertir andi yi muy li ñuy tudde mbambax ci lakk wolof di ko def énergie muy yassara. yasarab boobu mu di ko jëfandikoo ngir mën a produire wala ni mën a doxal ay moteur ak yi ci aju moom moomu fii la tàmbalee bala ñu dugg ak yow nag ci firi fàcce yi ba li la likkal nag ci leeral yi dañu lay wax ni la sunu càllale gii di seen YouTube bi di Xalam TV ndéem bëgg nga ko dooleel su fekkee abonné ko da ngay gaawante abonné waaye itam saa bu nu dugalee vidéo boo ubbee vidéo bi rek nga like ndem neex na la loolu mooy tax saa sunu dugalee vidéo YouTube ci seen algorithme ñu waajal la ngir nga mën a jot ci vidéo yi soo bëggee nag càllale gi gën a mën yaatu nga partagé ko ci mbaali jokkoo yi ak ci groupe whatsapp yi waaye ñu di la xamal ni itam yow mi nga xam ne bu nga bind wolof yi leer nañ ñu te set yu jaaru yoon mbootaay gii di wolof ak xamle seen ay numéro ngoog saa boo bëggee jàng wolof yu set mën nga cee daal di tàbbi bu weesoo nag cours yi nga xam ne dis koy def en ligne bu la neexee mën nga dem nga télécharger jàng wolof application bi ci Play nga jàngal sa bopp ndéem neex na la ma nga fa. nag nataal yi ngay seen muy benn oto su ndaw ak as mel ni lu fawantu ki nga xam ni moo ko liggéeyoon ba ñu jàppee ko lu dul dara tey jii moo liggéey lu yéem àdduna yépp waaye àdduna wërngal këpp loo xam ne du kenn du tubaab du chinois du americain du am naar moo liggéey lu mel nii waaye li mu liggéey nii mu nekk li ñàkk solo tey jii nag agrandir na ko réyal ko ba mu mujjee yéem nuy wax nag gaañu baax ñi nga xam ni ñoo ni topp ci sunu càllali gii di xalam ni ko ñu ko waxe woon ci wuppa yi jiitu bari na ñoo xam ni ndegam kii nit ku ñuul la mënuñu ko nangul lii ñooñu nangul na leen seen ngànt maanaam ku mu neex nga daal di gëm waaye itam ku mu neex nga weddi ndax yàlla def na ñu bari ci ñoom am nañ complexe boo xam ne li feek nit ku ñu lay wax waaye lu feek li ñuy wax ci lu baax ci lu xel di jëf nit ku ñuul lañ koy waxal mënuñu koo nangu kooku nag kenn du ko jima yayi waaye bu ne tubaab la bu dee ne xale buy dóor di judd sax ñu ni leen moo fi def lu yéeme lii ñu ni loolu war naa mën a nekk ndax jàpp na ni xel ba ko yàlla séddale tubaab dong la ko jox fàtte ni ku ñuul ki ñu doon ñoom ak ndonte tubaab du ko weddi waaye nag balaa ñuy wéyale ñu di leen wax itam am na ay mbokk yooyu bu ñu ubbee vidéo bi rek dañu koy daal di tëj ba noppi nag di ñu laajaat li nekk ci vidéo bi ku ci nekk dañ la nangul sa ngant ak sa ñàkk jamono waaye saa su ne rek nuy xam ni nun ñii di leen defal vidéo yi amuñu jamono dara dara waaye dañuy def sunu xamee dara lu amal nit ñi njariñ ñu jàpp ni juñ ko war a séddoo ak ñoom ngir mu nekk njariñu réew mi kon yow mi nga xam ni yaa ngi ñuy déglu ndigam baaxuwun di ñaan leen dong lay ñaan itam saa boo xamee ni yaa ngi déglu vidéo bi bala ngaa laaj nga déglu vidéo bi ba mu jeex ndax bari na ay laaj yu nuy laaj te ci biir vidéo bi la nekk ñu ni koy laajaat waaye bu weesoo loolu itam am na ay domaines yu bari yu nuy laaj te laaj yi nu koy laaj dana fekk ñu préparer ko ci playlist yi kon balaa yenn laaj di jib mbokk mi koy laaj war naa dem mu topp playlist yi ba noppi ndax vidéo benn vidéo rek balaa nga ko def li nga ciy daj ci temps soo ko defoon ci leneen bu dee alal doo ngay wut defe naa da ci am lu gën a bari la nga koy tuu wala la nit ñi jàpp ni moom nga ci am kon mbokk mi nga xam ni mu ngi duglu na xam saa su ne ni du am koo mënu bàyyi ci lii ñuy def wala benn mission bu dut yàlla waaye jaare ko ci lii ñuy def muy xamal leen lu ñu jàpp ni ñu bari xamuñu ko woon waaye jaare leen ko ci làkk woo xam ni moo leen gën a jigee bu weesoo loolu nag waa ji nga xam ni ab euh, Zimbabwe la maanaam Zimbabwe la dëkk ñu bari laaj nañu ko te wax nañ ko ci ay vidéo yu bari waaye ñu wéy dinu ko laajaat li ko waral mooy ñooñu dañuy tàmbali vidéo bi te duñu ko àggalee bañ na noo jeexal xëy na seen connexion jamono jooju nun jël nañu suñu connexion bu dugalal leen ko waaye jël suñuy connexion def ay recherche ba jotal leen ko xëy na itam mbokk moomu bañ naa jeexal temps waaye ci jamono jooju ñun xool nañu ay guddi ngir jotal ko dara waaye bàyyi suñ ay yitt yu bari ngir jotal ko dara kon itam nag ku bëgg xam dara faw nga nangoo def dara mbaa nga sacrifier dara kon loolu mu nekk génn dëgg goo xam ni nu tuubal képp koo dégg te mu déranger la waaye nu xam ni rek maanaam nit ñëpp dañoo yëmul ay xalaat waaye yemunu ay gisin mu waral faw itam ñuy waxante dëgg waaye di leeral ñen ñi nga xam ne dañoo réere mbir bu weesoo loolu nag waa ji nii wax nañu ne li nu xam ci moom lenn la muy génnewul benn université te ba muy am 14 ans ba muy am 14 ans ci li gën a siiw ci la bàyyi jàng jàngul ci école ba loo xam ne mën na ko permettre mu def lii ngeen di seen maanaam li muy def nii du école ko ko jàngal waaye li ñu tudd li ñu tuddi autodidacte mën nañu ni ci la jaar mooy njàng moo xam ni yow yaa koy defal sa bopp te bari nañu koy def fii ci réew mi bay amal ay réalisation yu extraordinaire waaye kenn falewu leen ndax ay nit ñu ñuul lañu xëy na wala ndax ay doomi Afrique lañu xëy na wala ay doomi Sénégal lañu xëy na nun nag jëggaani nu gënal lépp lu mën a am yàlla dañu nattoo nu nekk kembaar muy continent boo xam ne lépp lu ni Afrique la cosaanoo dañoo bañ am ñeneen ñu ànd ak noonu itam dinu ko bañ le dinu xeeble nun nag xalam lañu tudd nekkunu foofu nun noo ngi ci xam-xam bu set wicc sunu yoon nekkul ci làkk yi moo xam français la arabe la wala anglais ñun loolu defuñu ko xam-xam nun loolu jumtukaay lañu ko jàppee boo xam ni ni ko ñëpp jànge lañu ñu koy jànge te noonu lañ koy wéyee di jàng waaye duñu ko cité mukk maanaam duñu ko def mukk période priorité dañoo gëm ni saa bu nit ki xamee dara moo xam làkk wu mu ko mën a xamee da ko war a mën a wax ci aw làkkam ostensiblement li feeg loolu amut kon day mel ni bu ne dégg na ko itam des na nun lii muy sunu philosophie xëy na nag man nga wuteeg nun gis-gis waaye nu nangu la ko ndax loolu mooy Démoskratos waaye daal nun gëmunu làkk xam-xam la nu gëm waaye itam gëmunu parparloo dëgg la nu gëm gëmunu itam li ñuy tuddee racisme muy waaso nun nit la nu gëm waaye itam gëmunu réewum jàmbur sunu réew mi lanu gëm gëmunu kembaru jàmbur sunu kembar gi gëm saa boo leen diggee ñuy wax nit ku ñuul du jëmmi nit ku ñuul ci boppam couleur bi mënu yitteel waaye dañoo gis ni moom nit ku ñuul ñuul mu ñuul tax ay mbooloo yu bari di ko xeeb ak di ko néewal doole diiru ay siècle nun nag bu ñu ñëwee képp ku ñu néewal doole ci yow li ñuy féeteel di la xeexal ba nga jot say àq nun loolu mooy suñu devoir en tant que nit waaye en tant que koo xam ni dafay nekkal dëgg ci kaw suuf te mooy yàlla nun rôle boobu nga xam ni moom la yonente yi doon ndox yaatal xam-xam waaye dimbali képp ku ñu néewal doole ak ku ñu tooñ loolu lañu jàpp ni mooy sunu mission ci kaw suuf fu mel ni fii Maxwell Sokombutso tàmbalee nag doomi réew mi saa su ne ñu ngi wane lu leer nañ mu leer ni la ñii bu doon ni am nanum réew ba jàppale leen daañu def lu mel ni lii nga xam ni moom la Maxwell amal baa ñu amal lu ko rawu waaye nun danoo jàpp ni xam-xam mooy la nga dem ñu bind ko ci làkku français ñu jàngalaat la ko ngay tari rek te doo mën a def dara nun loolu la ñuy jàppe xam-xam waaye xam-xam jàppuñu ko li nga xam ni dañu naa mën nga lii nga ni waaw ñuy la defal ñu ngi gis nga daal di def mu leer nañ ñi andi ay résultat lii nag moo tax sunu réew mi waaye sunu kembaar gi di gën deltu ginnaaw ndax dañoo xeeb xam-xam xamunu xam-xam waaye nun ay làkk lañu xam dégg naa français dégg na arabe anglais loolu la ñuy ndamoo waaye duñu ñu ndamoo mukk xam naa lii wala mën na ma defar lii te muy dëgg bu dee ni dëgg rek lañu bëgg wax nag mbaa nu bëgg ko dégg fii ci Sénégal ñi fiy créer mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppe ñu xamul dara te moo ñu jàngul waaye bu dee nun ñi nga xam ñoo génne li ñu tuddee série scientifique yi lu wees wax wax ju bari mënuñu ko ak jiima xeebaatee jàpp ni ñeneen ñi ñoo xamul dara bu weesoo médecine gisuñu beneen produit boo xam ni ci ressources humaines mën nañu ni suñu réew mi dana ko produiraat lu dul ay waxkat waaye duñu génne mukk ay jëfkat yu ñuy génneel lu compétent waaye lu efficace waaye nag même ba fi amee itam du ñu leen toppatoo du ñu leen faale te ñi fi ëpp solo te ëpp fi xam-xam yor réalité yi ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñoom lañuy ñu tuddee analphabètes yi waaye nag ñi nga xam ñoom lañuy jàppee ñi nga xam ñooy ay intellectuel mooy waroom wax ñu bari ji ñi xeebaate di bëgg rey nit ñi ki làkk te xamunu dara ni nun ñii loolu nag lu wara a deñ la ndax dafa bokk ci jéng yi nga xam ni tubaab benn ko fi baal kon lii mooy li ñu indiloon mu nekk lu gàtt loo xam ni rek day jàngale ni képp kuy doomi Afrique mën naa weesu fi koy xalaatee sunu xale yi nga xam ne ñooy liggéey yu mel nii ñu di leen reetaan jàpp lu ñàkk fayda la mépp réew mu développé ci àdduna fii la tàmbalee ñu jël loola agrandir ko développé ko ba mu àgg foo xam ni xel xalaat ko woon kon fi ñuy njëkkee saa su ne mooy sur l'échelle mooy lu ndaw li ñuy njëkk a def mu nekk ci maase ba ñu mën a dem nag sur le plan réel waaye noonu Afrique nag danoo jàpp ni da ngay xëy xëy rek lépp mel na mu war a mel te loolu amul fenn kon lii la ñu doon andil ci sunu càllale gii di Xalam TV. di la dogal ngant bépp kàddu bu nu yëkkati moo xam bu mu mën di nekk bu fekkente ni nit ki jàppe na ne leneen tax nu du ko wax lu dul wax li nga xam ne rek mooy dëgg gi kon ñaanal la leen jàmm di leen jaajëfal yéen communauté xalam